maa leen di fay bu baax maa leen di fay bu baax a baax. lan ngay wax ci match bi nga xam ne mooy final bi nga xam ne mooy war a dox diggante espoir ak ak ak. waaw final bi defe naa bokk na ci final yi gën a am réussite ci forme mobilisation ak euh, aussi tamit euh, doomu aadama yëpp ñëw nañ teewe si ko. waaw ñu ngi ñaan yàlla mu jeex ci jàmm ak salaam que le meilleur gagne waaw loolu lañ ci am. président boo xamante ne yaa ngi nekk ci Pikine Nord. ñaari ASC yëpp nekk ci biir Pikine Nord ah, yow bokkuloo ci li nga mooy final lan ñaari adversaire ñoom ñaan ñëpp sama ay adversaire la mais macha allah teg nañ équipe yoo xamante ni nii wane nañ lu waral saison bi passé ñu am méritu finalu donc ñu ngi ñaan yàlla rek comme li may wax léegi rek mu jeex ci jàmm ak salaam parce que final dafa metti préparation bi dafa metti waaw. yow ak teraanga jaraaf bu match boo xam loolu bëgg nañu dugg. waaw teraanga jaraaf moom ku ne xam na ni euh, club D1 la bokk na tamit ci club phare ci réew mi yàlla dogal ñu def ay recrues yu am solo yoo xamante ni nii ñenn ñi ñoo jël meer buteur D2 ñenn ñi ñoo jël meilleur buteur national 1 ak meilleur gardien meilleur joueur yeeg yëpp. donc loolu day baax pour nga natt sa doole ci équipe yu am niveau yi donc équipe bu am niveau kenn du ko wax bàyyi jaraaf fii. donc Pikine lañ ko naroon commencé mais comme ñoom nee nañ yëgaguñu seeni ay tànk ñu ne pourquoi paa ñu jël jaraaf. waaw jël nañ ko nag match bi amoon na engagement amoon na amoon na bu baax a baax a baax a baax liñ ci soxla woon muy xam qualité joueurs yi ak ñan yàlla defal ñu ci ndam daal jërëjëf. en tant que président. waaw violence baaxul ci dara bu dul football sax léegi nit ñi dañu commencé di arrogant nit ñi dañu commencé di violent même bu dul football ci politique beeg lépp la nekkee te Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xam xar ñaar donc euh, nit ñi ñoo war a delloo si seen xel yi nangu ndogalu suñu borom yi te toog di xaar seeni ay di nangu tamit li aj li yàlla di teg ci ñoom daal jërëjëf jërëjëf